asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum Fall 94 Walf Sénégal dellu si na di leen siyaar di siyaare mboolem kuy topp Fall 94 fu Sénégal seen analyse chronique yoo xam ne leen koy defal saa nekk ci réew mi ak bitim réew jëfal nañ leen siyaar nañ leen way leen di topp Fall 94 Walf euh, Sénégal ahlan wa sahlan marhaba bikum fi 94 Walf Sénégal. voilà nag ñu ñëw ci li nga xam ni moo xew ci bis bi li xew ci bis bi nag xam ngeen ko mooy manifestation yi nga xam ne ni côté opposition bi doon dañ ko def te ñu yàggoon koo bëgg nag lool te mu gëjoon fi lool tey ñu defoon ko nag wane seen yéene wane seen naqaru xol wax liñ war a wax daal di delluwaat ci seen i kër ndànk amul benn problème kon manifestation moom yaakaar naa ne buñ ko encadré na mu waree. ñun ay sénégalais lañ defuñu xam nañ bu baax a baax a baax fi àdduna bi toll xam nañ tamit fi àdduna bi jëm te dinaa leen xamal leen àdduna bi partout dans le monde ñëpp ay manifesté wu amul réew mu dul manifesté wu kuy wax ne am na réew mu dul manifesté wu amul mais la ñuy manifesté wu lan la kenn ku nekk ak li wu ndax am na yuy xew ci àdduna bi yoo xam ne nii yenn réew yi dañ koy gis ci réew yi sori ñu naqarlu loolu ni ñu danañ def ay manifestation maanaam tey ji euh, fu ci mel ni tey ji Palestine seen euh, guerre boobu noonu ak Israël marocain yi def nañ ay manifestation naqarlu loolu noonu kan loolu manifestation la manifestation moom saa soo ko gisee rek ñi ko war a def dañoo am lu leen naqare loolu nag fan lay ne ci seen xol loolu nag pour mu deñ faw ñu wàcc ci mbedd mi wax li ñu war a wax bu ko defee ñu door a mën a am jàmm voilà lii mooy dëgg boo xoolee tey Abdoulaye Wade mi fi nekkoon ak régime am maanaam ak pouvoir am tey ñii nga xam ne tey ji ñoo toogee ci pouvoir bi bi fi Abdoulaye Wade nekkee may ñu loon woon jàmm dañ leen fattoon ci côté yépp coow guddi coow bëccëg yoon benn yoon Abdoulaye Wade ko nguuram ba ni mu wàccee ba ñoom ni ñu jëlee loolu noonu nag suñu borom euh, dafa xarañ lépp loo gis rek dafay amal ak jeexantal ba nga koy def neexoon na lool ñëpp jàppale woon nañ pourtant sénégalais yi la doon ja sénégalais yi la jàppale woon nag ba léegi ñoo fi nekk de walla kan ba léegi ku jéeg yii fi nekk nii ñoo fi ne te am na ci ñoo xam ne nii yéen a tolloo am njàng walla maanaam. ñenn ñi wala maanaam nga raw leen wala ñu raw la te amaana de yàlla euh, def na yow nga doon président de la république te ñoom doonuñu ko te xam naa ni yow xam nga ci ñu baree bari voilà kan yaakaar naa ne Sénégal day réew moo xam ne nii ñu ñëpp ñoo ko bokk manifestation daanaka mën naa ne du dara nit ñi ñoo jàpp ni dara la parce que dafay dafa egg foo xam ne nii Sénégalais yi dañoo demoon ba egg foo xam ne nii. liñ daan nëbbal nit ci cofeel ci loo xam ne warul génn ci pénc mi dañoo egg foo xam ne nii pour ñu génne ko du doon dara ndax lan la liñ bëgg te amuñu ko ñu leen koy xañ saa su nekk di jàpp seeni moroom di jàpp seen candidat bi nga xam ne ni moom rek lañ gëm projet ndax fii candidat yi bari na waxoon naa ko dinaa ko waxaat kenn ku nekk candidat ba la soxal kenn ku nekk candidat ba nga bëgg Sénégal noonu lay doxee voilà mais nag euh, système yi day changé jamono day dox nit ñi dañuy ànd ak jamono di dox mais système yi tamit day changé ndax kenn ku nekk boo ñëwee da nga indil loo xam ne ni lu bees lay doon pour nga bëgg koo doxal voilà parce que ku xamoon Senghor xam Abdou juuf ba Abdoulaye Wade kenn ku ci nekk ni nga doxale ko ak sa moroom ni mu doxale ba ci Macky Sall voilà kon euh, manifestation moom yaakaar naa ne euh, wàcce na naqar la rek ndax gis nga loo xam ne nii neexu la euh, wala gis nga yu baree bari yoo xam ne neexu la nga bëgg koo dajale sa xol boobu bu yàggee dafa lay indi ay problème mais soo defee ay manifestation wax li nga bëgg a wax euh, boo ko waxee ñëpp dégg ko après nga delluwaat sa kër loolu du problème ndax moom bu boobaa li mu bëggoon wax lépp wax na ko dana daati nekk koo xam ne nii dina yeewee ko ci boppam maanaam dina firi maanaam dina feex ndax li nekkoon ci xol bi yëpp génne na ko léegi gis nga ko tey def nañ ko def nañ li war a def wax nañ li war a wax coow nañ voilà léegi nag delluwaat nañ seeni kër te amul benn problème ndax dañ leen a encadré te ñoom dufuñu xamuñ bu baax a baax a baax li war a am bu amee daanaka mën naa ni coow li bari te wax dëgg yàlla coow bu baree ci ñun ñii waaw ci ñun ñii la maanaam euh, li nga xam day yëkkati coow ku nekk xam na ko pour mu arrêté dana doon loo xam ni lu gaaw la voilà euh, te yaakaar naa ni sénégalais yu baree baree bari liñ doon wax tey li taxoon ñu doog tey ci manifestation bi mooy ñu bàyyi ñi nga xam ne nii dañ leen a téye ngir politique bàyyi na candidat bi nga xam ne nii mbooloo mu baree topp ci ginnaawam ndax Sénégal moom ni muy doxee ñëpp xam nañ ko kenn ku nekk ki nga àndal kenn ku nekk ak ki nga bëgg dina nag yi li commencé ci euh, Ousmane Sonko Amadou Ba. Euh, Bougane ak Khalifa Sall ak euh, Papa Djibril Fall ak ñooñu ñëpp nga xam ne rek ay candidat lañ bëgg doon ëllëg xaw nag nu muy demee 2024 mais ay candidat daal lañ bëgg a doon ñooñu ñëpp tey jii kenn ku ci nekk mbooloo yi sa ginnaaw ànd ak yow di la jàppale mais Sénégal noonu la Sénégal gi yëpp mënuñoo bokk ànd bokkandoo bëgg kenn nit loolu mënul ne déedéet voilà mais nag yàlla kenn ku nekk boo wutijee dana def ci moom li nga xam ne nii moom mooy coobereem la nit ñi doon xëccoo lépp mu jël ko jox ko kenn waaye kenn kooku ne bu ko joxee ba mu jàpp ni daa ëpp xam-xam ñëpp wala da leen a ëpp gis-gis wala da leen a gën a yeewu wala da leen a gën a muus wala da leen a ëpp alal wala daraja déedéet demewul noonu bu xamee loolu rek du sonn ndax ci loolu lay jaare sukkandiku ci loolu daati boot ñëpp nag woo leen ñu ànd liggéey Sénégal maa gañe réew mi mais du dama leen ëpp xam-xam maa gañe réew mi du dama leen ëpp gis-gis maa gañe réew mi du dama leen a gën a muus waaye comme gañe naa réew mi du sama parti rek ñoo ma jàppale xëy na nag am ñu lay jàppale sa parti waaye Sénégal yëpp ñoo ànd booloo bokk ndey bokk baay jox la euh, réew mi kon Sénégal yëpp ñoo la jox réew mi kon nag da ngay wax ñëpp new la ñu ànd liggéey Sénégal ku bokk ci man ak ku bokk ci man voilà su ko defee nag. Eh, loolu moom boo ko defee ci sa wax dëgg yàlla ndorteel yaakaar naa ne sa mujj moom dina baax waaw ndax bu boobaa moom kenn dootul am loo wax wala looy laajee parce que coow lii yenn kuréel yi jaar fii kii lim liggéey kii liggéeyut yooyu yëpp xam na moo koy waral bañ a woote rek mais boo wootee ba ñëpp ñëw nga leen kaay la ñu liggéey si nag kenn ku nekk li nga am ci xam-xam ñëwal nga woo ñëpp voilà bu ko defee bu boobaa. képp ku génn di saagaaka wala ngay duñ la faale sax ndax duñ am sa jot te yow da ngay dem yow mi nga xam da ngay xas ak ŋàññe ak ñi liggéey ak ñi ŋàññe di ŋàññe yi nga xam dañuy liggéey guddee ak bëccëg da ngay ba yow sa jëm bopp bu nit ñi faalu da ngay ñëw bokk force am réew ku ko doxalee noonu da ngay dem kenn mënu ci dara parce que ñi nga xam dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy soboote ak ñi nga xam dañuy ŋàññe ak ñi nga xam dañuy xam ñooñu bu ñu demee ba xam ni ñoom kenn fekk siwu leen ci loolu ndax dañoo woote ne kaay leen liggéey Sénégal nga taxaw di ak sa kuréel dañuy dem ba yow sa jëm bopp nit ñi dañ da ngay soofu nit ñi waa mais nag loolu commencement la booy door a toog ngay wax te mu nekk lu sérieux mu nekk loo xam ne nii lu dëggu la lu yàgg lay doon te loolu Sénégal képp kot ñu jël ko teg sunu kanam loolu dong mooy tax loolu mën a ne mais par parloo bi xiiroo bi ŋaayoo bi nii tànk mi ngi suñu biir loolu moom du gaaw a am sama jarbaat a nga ne kaay ma fat la kaay ma jox la poste fii am ku ko yelloo joxoo ko jox ko sa jarbaat te sa jarbaat yelloowu ko loolu bu boobaa mooy voilà comme tiifa rek waaw kon 94 Walf Sénégal daal lii la leen indiloon tey euh, ci seen régime yi nga xam ne nii mooy xew ci bis bi ñu indi woon ci manifestation yi doon ci indi sunu njàngat ak sunu gis-gis réew mi tolluwaay beeg ya ci aju yooyu yëpp rek. voilà jox leen dig daje rek ba euh, suba jàmm kàttan suñu borom di leen jaajëfal way leen nag di ànd ak ñun euh, way leen di abonné di partagé di sem di commentaire di wax ne site seen site la jaajëfal nañ leen share nañ leen